yi nga xam ne yéen a ngi topp 24actu point com am nañu mbégte ànd ak yéen tey jii nag bu ngeen gisoo toogaay bi li ko waral ñu xam ne euh, am na lu am solo loo xam ne nag fas yéene nañu ko amal ci 24actu point com ñu toog ak euh, Serigne Fallou ñu gën koo xam ci Serigne Fallou alxuraan mu nekk euh, koo xam ne ñu bëri ñi ngi koy laajte ci liggéey bu am solo bi nga xam ne def na ko muy sëñ Fallou Khoule alxuraan di ko xam ne alxuraan ji ngeen di gis ñu tim ko. Euh, moom la ko bind waaye da ko bind ca prison ba la ko bindee mbir yàgg na mu demee lu ni mel mi ngi nii toog dinañ ci andi ay leeral ngir ñu fa yéene séq laaj ak tontu jëmale ko ci mbir mu ni mel euh, sëriñ Fallou alxuraan ñu ngi lay ziar bu baax bàyyi la nga jërëjëf sëñ bi maa ngi lay delloo ziar di wax mbokki jullit yi ñu seetaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa maa ngi tàmbalee samay wax ci. aayab suñu borom tabaraka wa taala bi muy waxee ne wala nabluwannakum bi shay'in min al xawfi wal joxi wa naxsin min al amwali wal wa samarati wa basiri sabirina di ca teg aaya aaya bu suñu borom tabaraka wa di wax ne wala nabluwannakum xata naxlamal mujahidina minkum wa sabirina wa nablu axbarakum di ci tegaat beneen aaya bu suñu borom di waxe ne ah, bismillahi rahmani rahim alif a mim ahasiba an yutraku an yaqulu amana wa hum laa yuftanuuna wa fatana allasina min qablihim fa la allahu allasina saddaqu wa la ya'lamanna di sant yàlla suñu borom tabaraka wa taala di julli ci yonente sallallahu alayhi wa di sant seexuna cheikh ahmadul xadim moom mi nga xamante ne moo wax ne ab toolam mooy alquranul karim sëriñ Mbay Jaxate day wax ne nattu bu ñëw legi mu dem te bu demee balaa ndam yoo xam ne yi dootuñu dem dootuñu wéy dootuñu jeex nattu bu ñëw boo ko muñee am yi wudul xaaja kajee ayam wajee ñu di sa jàmm ñu sob coon a jeex kon gannaaw bu ñu ndu nuyoo bokki jullit yi ñuy seetaan ci 24 at yi euh, di leen ñaanal jàmm di siyaar fu waay man di toll tey jàkkaarloog suñu jëmm ji di ñaan itam euh, seen télé bi yàlla yokk ko lool ci barkib Serigne Touba di wax la Serigne Touba waxoon ca ba ko yàlla teggilee nattu ya mu ko tegoon muy alhamdulillahi lasi yaruduni ila mahadin wa yasonu badani ila duyooriya bi daaru salaam bila anayin wali Touba li salaam euh, mbir mi nag euh, moom laa leen bëgg a leelal rek. ndax waaw ndax dafa doon loo xamante ne macha allah suñ borom moo mën a ma dimbale rek man jaam bu ñu dimbale laa. Abdan Sakoran muy jaam buy sant yàlla moom laa fas yéene doon jaam boo xamante ne day liggéey ci alxuraan Touba laa doon jànge ca daaray Serigne Souhaïbou bu radiyallahu taala anhu yàlla na yàlla dolli ay leeram fa laa jànge ba mokkal alxuraan euh, ba bind fa ñaari kaamil kaamil bu njëkk bi maa ngi ko jébbal Serigne Cheikh Awa moom Serigne falu ñaareelu kaamil bi ma jébbal ko Serigne Saliou Mbacké yàlla na yàlla dolli ay leeram gannaaw gannaaw ba nag ca laa demee dëkk bu ñu naan Casamance. lu jiitu may dem Casamance sax maa ngi doon jàngale Dakar difa fa jàngale alxuraan waaye gannaaw bi laa dem dëkk bu ñu naan Sédhiou ca Casamance di fa yëngu ci wàllu commerce. 98 la 5 août 98 ca fa dugg di dem ak ñëw euh, ba yàlla dogal bis may ñëw am nattu dal ma ci yoon wi nattu boobee mooy kasu rajab moo jub si des ñaari fan ma xëyee dëkk bu ñu naan Sédhiou ngir fas yéene ko defe si Touba. yu ba ci yoon wi dama doon étape par étape am na oto boo xamante ne nag dama ko mujj jël fay ci juróomi téeméer ngir mu war maa wàcc Kaolack. ban benn bus boo xamante ne ka koy dawal ma nga tudd Khalifa Ababacar Cissé. Euh, moom laa dugg ca oto mu jëlee ma bak ma war a fay juróomi téeméer ngir euh, wàcc Kaolack jëlaat benn oto ñëw Touba ndekete bis bi am na lu bon lu ci nekk loo xamante ne wax dëgg yàlla. Euh, baaxul santul yàlla te it wax dëgg yàlla ab jullit war na koo seexloo gis wala mu koy laal man nag ma ci dara mooy loolu ñu naan yàmba. yàmba waaw maa nga ca bis ba. luy tolloog walis wu def fukki kilo ñaar. fukki kilo ñaar ci yàmba. Mm, moo nekk ca bis ba léegi man bi ma duggee teg nañu samay bagage mooy walis wu def ay yére mm, ak sama beneen walis bu def ay xasida ak benn ordinateur ak benn imprimante loolaa yor waaye fayeeku wuñ ma ci dërëm tegal nañ ma ko xam nga booy ci côté bi nii am na lu mel ni maal bi. foofa lañ ma tegal samay bagage ndekete tegaale nañ fa weneen walisu def lu ñu tere bi ñu ba Pont Noiraux ci Kaolack ci la douane yi arrêté ñi nga xamante ne mm, ñoo nekk ci bis bi daal di wàccee ñëpp ba ñu xoolee nag daal di gis loola ba ñu laajee ko ko moom ñëpp ne selaw ñu laaj ñëpp ne selaw kenn nangu ko moom fa ma taxaw maa nga am ñeewante lool naan ci nit ñi. ñoo doy waar. Mm. dañuy jël bon def ko ci oto. indil seen bopp jafe-jafe ndekete yoo nattu ba ca sama kaw lay dal waaye man damaa gëm ne nattu bi la rek daa am lu lu ma yàlla namaloon rek. Hmm. biñ laajee ko ko moom kenn xamul ki ko moom duwaan ji dem wàcce chauffeur bi. Hmm. chauffeur boobee di Xalifa Ababacar Cissé nag moo wàcc ne maa ko moom ñu daal may jàpp. xalifa Ababacar Cissé moo wàcc joxoñ sama jëmm. mu tuumaal a ne yow yaa moom valise bi def yàmbaa ji. tuumaal ma ne man ma moom valise bi def yàmbaa yi ma wax wax ne wallaay lancim xaw ma ko moomu ma ko te mosuma ko gis te imam bii nekk Kaolack su ngeen ko woon mën naa koo taril kaamilu alxuraan ba mu jeex xaw ma lu dul jàng alxuraan que suñu son bi laa doon jàngee ñu ne ma ak loo mën a wax duñ la bàyyi ndax chauffeur bi nee na moo lay yab yaa ko moom. ma wax wax ñu ne ma dañ lay yóbbu daal may bindal PV euh, jàllale ma. loolu loolu kañ la woon kañ la woon. waaw alxames euh, ji mujj ci màggalu kasu rajab bi màggalu kasu rajab jub see la lay door a am at. waaw am na at ba ba ma feete ko woo ay nit ñu jàng alxuraan ma def ay berndeeg yu mel noonu daal ndax dama caa amee ndam. Mm-hmm. bi mu ne maa moom ma ne moomu ma. yàlla dogal ñu téye ñu ñu ñaar ñëpp yóbbu ñu ca prison bu kawla la. ca la ñu ma fëttee juróom-ñetti weer ak fukki fan ak ñeent. ca laa fa bind ñaari kaamil yi nga xamante ne moom ngeen di gis ndax ba ma xëyee rek. ca laa wax samay bokk ne leen nañ ma indil kayit ak xalima ak daa ñu wutal ma kayit jo indil ma ay xalima ma sot ci di bind alxuraan. noo euh, mbir yi dugg ci jaag euh, foofu noonu ci prison parce que ñu bëri dañuy wax ne genre mel noon du ñu nangu mu dugg ci prison yi beeg yu mel waaw man na yàlla daa dogal foofa ba fa demee dama fa tàmbali beneen liggéey ndax mboolem ña fa nekk euh, dama leen doon dajale ci jàkka ji daan waxtaan ak ñoom ci wàllu nattuyi ak di waxtaan ak ñoom ngir ñu génne seenum xel ci xaru di leen xamal ne yàlla suñu borom moo moom ay nattoom te am na ñoo xamante ne xañ na buñ fi duggul woon tey jii ñu ngi ci seen biir bàmmeel nañ leen ko sant yàlla bu baax a baax baax di waxtaan ak ñoom di di di leen jàppale ñoom ña nga xamante ne ñoo yore wàllu prison ba ci lu bare bare ndax ay nit moom bu ñu dajee fenn te ànd nañoo seen sago booy waxtaan ak ñoom ba ñu amuk dal rek ñaa nga nekkal dañ lay fonk ba tax na benn jafe-jafe ña nga xamante ne ñoom laa nekkaloon indi luñ ma ko tax na saa su ñëwee wala xalima wala ak daa wax dëgg yàlla ña nga xamante ni ñoo jiite béréb ba euh, dañuy fexe nu ma ci jote suñu su daa ji ñëwee nag ma daal di tàmbale bind alxuraan waaw li waral turu Serigne Fallou alxuraan yi mooy ñaari kaamil yi ngeen jàkkaarlool te ma bind ko ca biir prison bu Kaolack ci juróom diirub juróom-ñetti weer ak fukki fan ak ñeent laa def ci biir prison ba bind ko néeg ba ma ne woon maa ngi ko bokk juróom-ñaar fukki nit mu xat lool xeeñ lool tàng jër mu doon béréb boo xamante ne wax dëgg yàlla boo fa dugee moom da ngay defe ne àdduna moom fii la yem da ngay defe tukki na di bind ci alquran rek ndax suñ borom daa wax ci alquran innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudihu ajral muhsinina waaw loolu moom moo tax ma ne naa muñ te fas yéene ragal yàlla te bàyyi lépp ci mbirum yàlla te xam ne dana att dëgg. est-ce na nga bind kaamil euh, ci biir prison. waaw loolu moom jafe na trop ndax koo xamante ne bis bu set tàkkusaan ngay tëri. te fa ngay nekk dana xat-xataay goo xamante ne daanaka am na ñoo xamante ne du ñu ànd ak sax seen sago ndax xatataay ga ak méttiwaay ba damay def ñaare bu ñu xëyee huit bu ñu ma ubbee rek ma daa di tàmbali li ma war a bind yàlla mën naa dogal ma bind euh, nisif wala ma bind isib wala ma bind nisif ak robo su ko defee Euh, da da da bu cinq jotee ay six yi ñu daal may woo ma daal di dem tëri waaye daal ñaari kaamil yi moom bis ba mu noppee ca lañ ma wax jëlal say bagage daanaa fa def ay conférence nag waaw saxal fa njàngum alxuraan moo xamante ne bis bu set li may jàng ci kaamil bi bis bu ma ko tàmbalee moom bu bis ba dellu see semaine bu nekk dinaa wàcceeb kaamil waaw nga xamante ne euh, seetlu naa ñaar fukki xatmu ak benn yoo xamante ne xatmu naa ko ay kaamil ngir ñaan yàlla sama borom mu tegal ñu natt yi doon naa fa jàngale itam alxuraan xam naa la ma fa doon jàngale alxuraan nag moom la ma yàlla fayee ci bitti ndax la ma fa doon def lépp ngërëmal yàlla rek laa ci doon sàkku ndax alxuraan moo la ma fa doon def lépp dama gëm ne lu yàlla digee rek dana ko def te ku def lu baax faaw am lu baax te dara gënul alxuraan alxuraan mooy lépp mooy téere bi nga xamante ne suñu borom moo ko wàcceel boppam te moo koy wattul boppam boppam dañu maa tooñ te loolu yàlla seere na ko ndax suñu borom dafa wax ne inna laa a yaxfa alayhi shay'un fil ardi wala samaa'i man yàlla dara ump ma moo xam lu ne asamaan la wala lu ne ci suuf kon xam naa ne jàpp gi ñu ma jàppoon tuumaal ma euh, umpul maanaam umpul yàlla yàlla xam na ba xam dëgg la dëgg lépp yàlla yàlla moom xam na lu leer ci mbir mi xam na ne laaliwuma ca dara am na bis sama baay si ma ñu ne ma am nga wisit ma ne kan la ñu ne ma sa baay moo kilifa di la seet ma daal di sama xalima daal ne bala maa dem day dinaa bind ay bayit yoo xamante ne euh, bayiti sant yàlla lay doon te it képp koo xamante ne xam nga tey jëfandikoo sam xel boo jàkkaarloo moom da nga xam ne kii liñ koy tuumaal dara amu ci muy ay bayitu taalif la ma wax mooy ngir yàlla ak jëmmi rasulullahi ba leen ma sonn naa giñeel billahi ngir yàlla ak alaaji Fàllu Mbàkke ba leen ma waay ma ñibbi Tuuba mbake lii ñu ma tuumaal jàpp tëj mu yàmba bu dee lu am naa dee ñu naa yamba bu dee couleur ba xam naa nu mel wala jëfandikoo ko ne ci saam xel wala ma mos koo jënd mbaa ma koy jaay wala ñi koy jaay kenn doon ci saawaay wala ma gis may tux wala ma gis kuy tux mën ko may ma yàlla na ma bamba tër fanaari ray ma xaw ma ko xaw ma couleur bi nu mel waaye nag daa daa doon bëgg bëggu suñu borom suñu borom bu lay dimbali fu ne la ko jaarale fansa an takron sayan waye ci xalallahu fii xayran kasiran euh, ci yenn condition lañ la bàyyee waaw condition yi mooy enquêteurs yi ñoo doon enquête ba xam li xalifa Ababacar Cissé wax ci Serigne Fallou xule dëgg la wala du dëgg xalifa Ababacar Cissé nag bañ fa amee ñetti weer jàpp ñeent ca la fa amee këyit wii ñu naan liberté provisoire ca la defaree ay bagaasam nag génn luy réewum Sénégal mooy sëfoor bi ko moom moom ci wàllu boppam boo sëfoor ji waaw moom moo ko fi dugaloon yi woo nañ ma mm. euh, daal daal daal daal di may bàyyi mm. Euh, enquête bi leer na nañ Khalifa Ababacar Cissé mooy ki ko fa dugal te daw na génn réewum Sénégal aéroport bu bees bii di aéroportu Diass kero bañ ko ubbee ca ñetteelu ba ca la génn luy réewum Sénégal waaye man sant naa yalla bu baax a baax ndax biñ may bàyyi dafa tombeek ñaareelu kaamil bi di door a mat ci bis bi bis bi nga xamante ne ci la ñaareelu kaamil bi mat ci lañ ma bàyyi booba dafa fekk itam sama soxna am gone ñu tee ko hôpital bis biñ ko bàyyee mook liir euh, mu war a jóge hôpital Euh, ñëw ci kër gi ak bis bi ma fanaansee ci kër gi benn lañ maag maag tout tànk bi daal ñoo bokk benn bis boo xamante ne ñu fanaan moo tax ma ne nattu rek la woon nat rek la woon kenn defuma dara xam na ne loola day buntu ba day sabab ba sababu haybati anna allaha a an anala min wujaha wa an akuna shafian li qawmi wa an akuna khadiman fi dawmi Sëriñ Tuubaa nee na sama tukki bi sax sabab bi mooy suñ borom da na ma defal mbir rek daa daa na ma fajal ma fajal ma mboolem samay aajo ngir ma ramm sama waa peuple maanaam sama waa sama waa réew man may ñaan sama kaamil gudd fanuk Sëriñ Muntaxa ak wéram ak mboolem naal yi mu naa la Sëriñ Tuubaa suñ borom damay ñaan arafu ci nekk rek mu def ko yiwu fees diggante asamaan ak suuf may Sëriñ Muntaxa gudd fan ak wér daara je daal fas yéene naa koo defar ba mel lislaam war a ma dem toog fa di jàngale alquranul karim ndax Serigne Touba daa wax ne njàngaleem alxuraan sama bëgg-bëgg ndax alxuraan mooy sama tool képp ku ci nekk boo ko yégee ak boo ko yëgul man Serigne Touba sant naa la gërëm naa la te Serigne Touba daa moom alxuraan malakanil xuraanu rabbul alamin nee na yàlla mi borom mbindeef yi day moo ko moom loo alxuraan malaktanil xuraanu tamlikan ya duum suñ borom moo ko ko may ba faw ne ko yaa moom téere bi di alxuraan awrastukal kitaaba cheikhuna cheikh ahmadul xadim moo ko bind malaktukal kitaaba mbindum Serigne la ak laxantukal kitaaba nee na yàlla moo ma sa téere bi moo ma ko dondaloo moo ma ko moomloo kon barkeb Sëriñ Tuubaa mën naa wax ne mooy circuler ci àdduna bi foo ay man di nekk boo ko yëgee ak boo ko yëgul yaa ngay jëfandikoo ci barkeb Sëriñ Tuubaa lam yàpp xafil xalq siwaa man yadlu bu barakat yi waxat ataani man la bu kon Sëriñ Tuubaa lépp lu mu doon sàkku ci suñu borom rek yàlla jox na ko ko comme téere bi di alxuraan nag moom la ko yàlla may mu doon ab toolam te ñun ñu doon ay dongay Sëriñ Tuubaa kon sëriñ bi bu ñu xëyloo ci tool bi rek dañ cee war a kenn defuma dara kenn waxuma dara mel na ni loolee sabab la la ma ca jubloo wax rek mooy nit toog palaasam jàpp njàmburam di xaar fa mu war a wàcc mu àgg fa ndekete yoo dana am fu mu jaar ba am fa ñaari at wala ñetti at wala fukki at ndax ñu bon ñooy jël lu bon ñëw uufal ko ko te lu mel noonu képp kuñ ko uufal rek moomoo ko ndax ka koy yóbbu moom da koy sori ndax day xam ne lii buñ ko ci jàppee day sànku ba faaw moo tax ma ñaanoon ne lii ñu may tuumaal bu dee dëgg la ba keroo may faatu yàlla bu ma am lu baax lii ñu may tuumaal bu dee dëgg la saa sawara gi suñu borom bind te te cay dugal képp ku ko tooñ yàlla naa fa jiitu lii ñu may tuumaal bu dee dëgg la li Serigne Touba di séddale yàlla bu ma ci am lu toll ni fepp waaye bu dul dëgg yàlla naa fi génn léegi te su ma génnee naa tàbbi ci ay xéewal ba àdduna bépp xam ne dañu maa tooñoon yàlla daal laa bëgg mu àtte sama diggante ak ak tuumaal. mbir mi nag leer na naññ ndax bi ma génnee ba léegi mën naa wax ne lu ma amul woon ci 18 ans euh, maanaam ci menum at laa ko am. xéewal yaa ngi ñëw bu baax a baax daara ja nag moom laa bëgg a àndandoog ñëpp. Mhm, waaw ñu liggéey ko fas yéene cee sàkku aw yiw ndax jàkk ji ñu toog tey ñi ko fi def liñ ci bëgg mooy ngërëmal yàlla ak ak yiwu yàlla moo tax daara ja ma fas yéene koo def béréb boo xamante ne euh, dañ fay jàngale alxuraan muy man ak mboolem ña ma cay jàppale mhm. di def la xamante ne moom la Serigne Touba bëgg muy njàngalem alxuraan ak njàngalem xam kon daal képp koo xamante ne da nga am yéene indi fa sax njaboot ñu jàng si mhm. ubbi nañu bunt yi ndax daara Serigne Touba la képp koo xamante ne itam da am yéene jàpp ca

sëñ Fallou alxuraan ji daal loolu mooy mooy mooy li ko indi daal waaw fi mu toll nii daal wax dëgg yàlla uh-huh. Uh-huh. am naa yéene wàññi sama laab mm, am naa yéene wàññi sama laab uh-huh. mm, fas yéene dem ca daara ja toog di jàngale maa ngi koy de joxe nag muy sakub sëñ Tuubaa la sakub sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa lu waay def ci alxuraan rek tamuy tamuy lu baax maanaam moom nga ko defal ndax moo ko moom waaw lépp addiyal naa ko sëriñ Tuubaa di ci ñaan nag daje ngërëmal yàlla ndax sëñ Tuubaa Euh, bu bu bu bëggee rek suñu borom bëgg lépp loo gis euh, sëriñ bi bëgg ci rek xamal ne loola mbir mu yàlla bëgg la te ngërëmal yàlla dafa am solo. warilwaanun ak akbaru saalika huwa alfawsul asim falawlaa nafara min kulli firqatin minhum taifatun li yatafaqahu fi diini wa li yunsira xumumu isaarajoo ilayhim lahalum yasroona aaya la bu nekk ci alxuraan waaye fa ma koy tëje mooy ha fawtu hanil ahdayi turran li wacce man nafaahum li xayri sarmadan lastu at famu jàppaluma kenn dara sëfoor bee sëfoor sëfoor ma sax jéggal naa ko ngir jëmi yàlla jéggal na ko ngir jëmi yàlla mm. waaw topp ma ko lenn yàlla ko yàlla defal jàmm moom nag génn na réew mi waaye eh, yàlla na ko yoon jéggal yàlla na ko yàlla jéggal yàlla na ñibbisiwaat ci ak njabootam ak jàmm ak salaam waaw yàlla nañu yàlla defal jàmm man daal sama ñaari kaamil yi mm. la sëñ Touba doon wax naan alxuraan mooy ab xaritam mayit alxuraan daal moom laa def mooy sama xarit te lépp lu ma ci def def naa ko addi sëriñ Touba yàlla nañu yàlla boole defal jàmm ak tawfeex ak taysir in uridu ila islami mastatantu wa ma tawfeexi ila billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërëjëf mu nekk uh, lu am solo ñu àndoon tey yéen ñi nga xam ne yéen a ngi doon topp invité de la rédaction tey nag uh, ñu amoon invité bu am solo boo xam ne uh, lépp rek def ko jëmale ci alxuraan dégg ngeen histoire bu am solo bi nga xam ne nettali na ko muy koo xam ne dañu ko tuumaaloon tëj ko euh, ci prison waaye nag euh, tuuma googee yàlla tey leeral lépp ne du moom waaye itam yemu ca waaye mu bind ñaari kaamil ci alxuraan ñaari kaamil alxuraan muy ñaari exemplaire wu alxuraan euh, mu bind ko nag ci diir bu gàtt mooy kaamil yi nga xam ne moom la ñu tiim mu nekk lu am solo loo xam ne vraiment ñi ngi ko ci sant bu baax di ko ci gërëm te di ko ndokkale vraiment ci oyof gi nga xam ne oyof na ko tey ngir séq ñun bi lay jotaay yéen itam yi nga xam ne yéen ngi doon topp 24 actu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm Cheikhouna Ndiaye moo nekkoon ci caméra bi montage bi Khadija ñi koy sant bu baax di ko gërëm Awa Ndiaye ñi koy sant di leen jox dig daje incha allahu rabbi ci yeneen i jotaay ñu fas yéene ci ànd ak yéen jërë ngeen jëf ba beneen